temps namoon nañ la euh, di euh, nuyu mbokk yi ñuy teewlu di nuyu ñii nga xam ne itam ñoom laa fi fas yéene bokkal plateau bi di sant yàlla mi ñu may ñu fekke waat dalal ak jàmm Kajoor c'est un plaisir Pape nuyu naa la dalal ak jàmm. Euh, Aïcha maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi téléspectateurs yëpp yu ñuy seetaan di nuyu aussi Kajoor Cissé di nuyu Amadou. Amadou mu ngi ci plateau bi Amadou dalal ak jàmm. merci beaucoup dal naa jàmm nuyu la Ahmed Dia contenté fekkaat la ci plateau bi ci lundi bi ci début de semaine bi nuyu la nuyu aussi ñi nga xam ñoom la ñu bokkal plateau bi Kadior Cissé Pape Malick Thiam ak nos chers téléspectateurs. c'est plaisir de partager le plateau ak yéen dal leen ak jàmm dañuy tàmmalee la revue web Kadior ak ab laq-laq bu nga xamante ni moom la ñu dégg fële ca. Euh, Sandaga. moom la mu xewee nag euh, ñun Dakar le Dakar waa euh, point sn moom moo ñu koy daal di xamle nee nañu nag ruq bi ñu duppee ruq disquette foofu la mbir yi euh, xewee ba léegi xamuñu nag lan moo waral daanaka lakk-lakk boobu daal di jib foofe ca Sandaga nga xam ne bokk na ci bërëb yu ñuy gën doxantoo fii ci Ndakaaru ci wàllu jënd ak jaay waaye bu ñu nag ci journal journal bi ba léegi nee nañu nag euh, ñetti magasin ñoom ñoo euh, ay magasin cosmétique ñoom ñoo daal di lakk làkk ba mu jeex takk foofee nga xam ne euh, moom mooy Sandaga commissariat bu Rebeuss naka noonu sapeur pompier yi ñoom daal di nañ fay wàcc ngir ñii war a fay fay ñenn ñi itam tijji l'enquête xool ana lan moo waral lakk-lakk boobu. président Diomaye Faye daal di nay dakkal lépp luy construction au niveau de la corniche de Dakar. waaw loolee nag euh, kii di euh, Pierre Goudiaby Atepa moom moo ko daal di euh, xamle ci ab waxtaan ba mu seqoon fële ca RTS ci ab émission moom nag la mu xamle mooy dakkal nañu bépp liggéey boo xam ne. dañu ko tàmbale woon foofu batiment yi ak yooyu waaye bokkul nag ak yenn travaux de d'aménagement yoo xam ne état moo ko jël ngir gën a yees euh, daanaka gën a yanjal euh, bërëb ba euh, bâtiment yi ñuy tabax te muy baare ngelaw li war a dugg ci biir Ndakaaru moom lañu ñu di dàkkal ndax nag kii di Ousmane Sonko laata muy euh, tàbbi ci bopp réew mi euh, dafa waxoon ne bis bu ñu ko dénkee réew mi dina dakk dina daaneel daanaka euh, tabax tabax tabax yooyu ñu fa tabax mm. yépp su ko defee nag kii di Pierre Goudiaby Atepa nag nee na du du yomb du nekk lépp la ñuy daaneel waaye nag sëgëm ñoom am nañu taxawaay bi rek xel mën na daal moom mi nga xam ne daanaka dafa bokk si ñi doon xeex boobu léegi mm-hmm. ngir ñu dakkal tabax yi ñuy tabax euh, corniche bi nga xam ne dafay tee euh, nit ñi mën a euh, am accès ci plage yi waaye itam mu bloqué lépp loo xam ne ngelaw la buy jugee ci géej gi waa Dakar yi mën ko bénéficier ñu wax ci xalif bu Medina Baye moom nag mu ngi demoon na fële ca Maroc. mu ngi fi depuis le vingt le vingt avril moom ca la dem Maroc moom Cheikh Mahi Ibrahima Niass ci cadre. Euh, diggan dox diggante euh, jullitu Sénégal yi ak jullitu euh, marocain yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci tarixa yi tijaan moom nag dafay tàmm di ko def fexe rek ba diggante yi mu gën ko rataxal ci loole la nekk ci visite boobee nag nga xam ne mm-hmm. invitation wu ki nga xam ne moom mooy roi wu Maroc moom moo ko invité naka noonu ay kilifa diine yi fa nekk donc dina wër ci ay ay bërëb yu bari foofu euh, daje ak euh, ay kilifa diine yu bari rawatina ay kilifa yoo xam ne ñoom ñoo seq euh, tarixa yi tijaan mu amal ay conférence loolu yëpp jubluwaay bi du lenn lu dul fexe rek ba gën a rataxal diggante jullit yi ci diggante ñaari réew yooyee. Mhm, loolu am na solo jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal la bu baax a baax xibaar yi am na solo laq-laq bi am fële ci marché Sandaga. ruq disket ruq disket de disket yëpp xam nañ fa xale jigéen yëpp fay dugg. waaw loolu laa dégg a ah, man na xaw ma ban <laughs> mënu ma ko localiser. xaw ma fan la mais daal nee nañu ñetti ñetti. Euh, ñetti magasin lakk lakk ñoom ñetti magasin ñoo lakk. Euh, on va on va revenir sur euh, yenn dispositif yoo xam ne moom mooy waral lakk-lakk yi tout le temps chaque fois dañ koy wax rek branchement clandestin yi. ak yenn manque de dispositif yoo xam ne dañ koy war di def bu làkkee ñu mën ko fay nu mu gën gaawee. Mhm. yooyu yëpp ça souvent défaut du coup bon loolu moom mooy waral aussi euh, lakk-lakk yi ba léegi mënuñu fexe rek ba tàggoog moom ci marché yi. ci marché yi ñu ma masawu leen bu baax a baax euh, président Diomaye fay daal di dakkal lépp luy construction au niveau de la corniche est-ce que nekk na lu leen bett. parce qu'à un moment donné wax dëgg yàlla nekkoon na combat ci ñenn ñi corniche bi ñi ñi dañuy dem ba pour ñu am fu ñu toog sax wala fu ñu feexloo problème la parce que yëpp dafa nekk ay espace yu nga xamante ni dañ ko mujj privatiser. loolu xam naa ne dina dina bon ñun moom ay village la ñu fee lañ jógee. mais yéen ñu dëkk fii nii <laughs> yéen Dakar waay xam naa ne dina leen neex loolu ndax euh, tey jii boo xoolee ci fi ñu tool nii jafe na lool. Dakar waa bu soxla simplement dem féexlu nga nga nga wàcc corniche yi cest tout est privatiser ñoom tabax nañu fépp ba finalement ñu téye dakaar waa ci seen kër te yaakaar naa ne même bu dul sax le fait que la possibilité sax bi nga xam ne nga mën di féexlu mais tabax bi ñu koy tabax aussi dafay dafay daal di étouffer day étouffer Dakar ndax ngelaw mhm. boo xam ne aussi day jóge ci géej gi di dugg finalement si on on on construit euh, devant kii bi nit ñi duñ ci jot donc je pense ñi ko tabax aussi euh, dañu am seen papier en bonne et forme ñu tabax ko ñu état bi def leen jox leen ko ñu ñu mën fa tabax ñu dugal fa seen xaalis également donc doo xëy xëy xëy nii rek euh, raser ko parce que Sonko loolu la waxoon dinaa raser tous ces bâtiments là mais ça ça reste des des des mots hein, parce ouais. que ces gens là ils pas investi autant de millions. Mm. wala mm. voilà, voire milliards pour que nga yeew nii parce que. tu dans seul coup nga raser ko. il va certainement y avoir des des négociations ak yooyu des compromis pour ça. Mm -hmm. mais l'idéal mooy vraiment ñu ñu ñu régler problème boobu. parce que mhm. ça ça fait souffrir beaucoup. de ouais, beaucoup et c'était abusé quoi. ci benn ci benn instant bi. c'est ça euh, euh <clears throat> ci. Euh, corniche de littoral bi ah d'accord euh, bon. c'est pour man bu fekkee dañu def loolu c'est une bonne nouvelle. ci euh, environnement bi ak tamit si euh, corniche bi parce que boo boo demee si Afrique yëpp li ko wër surtout Afrique de l'Ouest yëpp boo demee moo que soit mu nekk euh, que soit mu nekk Côte d'Ivoire que soit mu nekk Togo wala wala yeneen dëkk yi nga xamante ne daal ci booru océan Atlantique la nekk bon corniche bi dañ koy aménager de telle sorte que nit yi dañ fa am accès. mais bon problème bi moom mooy aménager de telle sorte que am na ñoo xamante ni peut-être suñu di ñu jige état ñoom ñooy dem di construire. Euh, après ñu koy louer wala ñu si def ay restaurant wala ay hôtel euh, di ci gagner ay milliards euh, donc si au dos si doowu sénégalais alors alors que amuloo benn légitimité alors que domaine public la mhm. donc loolu pour man c'est c'est un salut le fait que bon bu fekkee ne dañu aménager foofu noonu pour public bi parce que domaine public la kenn waru ko jaay kenn waru ko ñëpp ko bokk dañ dañu war a dañu fa war a nekk espace boo nga xam ne espace bu tijjeeku la mhm. beneen bi moom boo ko jot ko sànq euh, xam naa ne euh, dinañ poursuivre état Sénégal parce que voilà loolu mënoo ñëw rek euh, dàq nit comme ça alors que boo jënd na am na terrain et tout donc peut-être bataay bu dul jeex la moom fii ak jàppal ne fii ak mën na durer sax cinq ans ou cinq ans wu mandat wu Bassirou Diomaye Faye parce que combat bu titanesque la boo ko engagé moom voilà di nga xam fu muy fu muy commencé mais pour nga xam fu muy arrêté donc voilà mais pourvu que sénégalais yëpp profité ci ba xamante ni fii corniche bi wala feneen espace bu mun espace boo xamante ne état moom moo ko domaine public la. ñëpp sénégalais mun fa accéder. Mhm. Euh, parce que on a droit accès à la mer quoi.

ah à respecter bu fekkee ne respecté nañ règle yooyu noonu ñu xool ko bu fekkee respecté wuñ règle yooyu aussi tamit ñu xool ko bu baax a baax la après nag c'est vrai te dina am ay procès yoo xam dina am parce que ñoom investir nañ def nañ li nga ne moom la légal mm-hmm. loolu tamit foog ñu xool ko bu baax a baax te buñ ko xoolee je pense que ne am ñu bari bari bari ñoo xam dinañ perte parce que boo xoolee tey jii ci li nga xam ne moom xoolee tamit boo demee VDN boo demee wetu wetu VDN 3 bi aussi ci li nga xam ne moom mooy. foofu coow li bëri na falaa dëkk gis nga ni mu ni ñu ko ni ñu ko daggee déclassé ko déclassé ko yoo xam ne c'est anormal ba pare jox ko attribué ko des personnes yoo xam ne xamoo sa attribution bi nu demee da ngay gis rek jékki-jékki gis benn nit ñëw ko jël loo di ko tabax donc je pense que c'est une bonne c'est une bonne chose c'est président Diomaye jël parce que suuf si ñëpp ko bokk te dañoo war a am noo xam noonu lañ ko war a organiser mais pas ñi ñoo ci am ñii duñ ci ñi duñ ci am. VDN 3 bi moom xam naa la fa nekk ci ay litige ak ay problème kenn mënu la wax kenn mënu la wax loolu doy na waar. Mm-hmm. doy na waar trop donc mu mel ni dëkk bi daal li ñu fi war a. mais si bëri nag ay sociétés étrangères la ñoo xamante ne dañuy ñëw pour construire ay restaurants ay hôtels affaire yooyu noonu. parce bi wala ci. fii nii si co si corniche bi ah ok waaw waaw waaw ah, Paris Saint-Germain PSG champion de France pour la deuxième fois. <laughs> noonu ko dundee yéen. non mais donc euh, seen saison ren mooy na bon il a fallu que ñu xaar ba Monaco euh, ñàkk démb ñoom ñu seen euh, ñu ñu soog a mën a mu soog leen wóor ne dinañu dinañu gagner donc je pense que c'est c'est c'est c'est tout bénéf pour eux parce que. Euh, dese na leen également yeneen coupe ñaari trois coupe yoo xam ne mm. mën nañ ko jël te ça c'est de bon augure parce que ça ça permet euh, de maintenir la confiance pour mën a assurer ñetti euh, kii yi des yeneen ñaari coupe yi des yi des Pape bon c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens mais moi je suis pas un Parisien <laughs> euh, voilà moi je suis beaucoup plus Euh, Milanais quoi que que que que parisien man j'aime pas les yu nga xamante ne bon dama jàpp ne ay club arriviste comme ay PSG Manchester City club yu nga xamante ne bon peut-être ci dernier ci dix dernières années lañ leen fondé nga xam ay Qatar ay milliards yu jeex euh, daal koy xëpp ci club bi donc ñu alors avant PSG nekkul woon presque c'était un petit club bien que club capital la woon euh, mais boo xoolee club yi nga xamante ne moo gën a mag France nekkul PSG xam naa supporters yi PSG dina am lu leen métti Marseille par exemple mooy club bu gën euh, mooy club bu gën a bu gën a mag France man je adepte que euh, championnat boo xamante ni compétitif que équipe bi euh, ñu elles se valent quoi par exemple année bii bu fekkee comme lu xew Allemagne par exemple que Bayer Leverkusen nekk na champ nekk na champion première fois de son de son histoire et puis parfois mu nekk Dortmund parfois mu nekk Bayern Munich parfois mu nekk Hambourg fay Hambourg ñoom nekk signifié tuñ dara mais je veux dire que. mu nekk championnat boo xamante ne am na alterna alternance. Euh, voilà yow doo parisien non heureusement qu'il y a pas ton visa. non parce que dafa souligner ñaari club yoo xam ne c'est des rivaux mais pas comme je veux dire non je veux dire benn parisien. non je veux dire que je veux dire que je suis beaucoup plus man par exemple je vais dire Milan la. Hmm. Euh, xam nga donc euh, xam naa ne bon en ce moment depuis ay dernières années bon on est là on vit dans la dèche quoi mais euh, ay Paris ay Manchester City moi je les je les aime quoi. bon donc, quand tu seras avec ton Milan là quand vous serez en haut on en reparle quoi. <laughs> d'accord rek non. ak leen fi PSG ak ba pare. bon balaa balaa xam nga xam nga xam nga lu mu bëgg a wax. ah lu bëgg a wax par exemple PSG dañu am xaalis di jënd joueurs yu leen neex. waaw par exemple il fut un temps. nekk nañ huit fois euh, champion France consécutif mais dañ doon jënd amuñu woon xaalis yenn xaalis ñu doon jënd ay de bons joueurs pour de faire faire une équipe alors que PSG ba emmagasiné joueur bu gis bon ñu dem rek jël. Ah, après teg euh, alors que man man <laughs> football xaalis la je pense que actuellement. football football industrie la xaalis la aussi. on les félicite comme ni mu ko waxee moom il n'est pas parisien moi aussi je suis pas parisien je suis monégasque mais on a Paris moom mooy gagné li nga mm. moom mooy championnat bi parce que vraiment écart yi c'est colossal boo xoolee budget yi c'est colossal jour yi fa nekk bokkul donc du équipe bi sax championnat France vraiment parce que boo xoolee premier bi Paris li mu am ci li nga xam ne moom mooy point ak deuxième bi Monaco da ngay gis écart bi c'est plus de dix ou onze points donc da ngay gis ne vraiment boxé wuñ dans la dans la même catégorie donc on les félicite. Hmm. bu baax a baax a baax a baax. te vraiment on <laughs> s'y on s'y attendait on savait que ni lay ni lay ni lay mel. Pape Malick mere PSG moo xam naa looloo tax. non mais loolu d'autant plus d'autant plus yaa ngi naan yaa ngi naan euh, <laughs> Paris Paris nekkatul nekkatul équipe bu mag mais actuellement. actuellement boo jëlee boo jëlee championnat France je pense que moom mooy l'équipe la plus titrée en France actuellement. je pense avec France euh, Paris. avec oui, avec avec douze douze douze douze titres de championnat n'est pas un Parisien donc euh, voilà il n'est pas content quoi. mu ngi noonu merci beaucoup Kajoor ñu jaajëfal la dañuy enchaîner rapidement mbokk yi waxtaane politique léegi léegi bu baax bi noppee ñu di kat ci plateau bi.